bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri lxaq bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadri wa miqdaari alazim wa radiya allahu an ashabi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim ya himmata cheikh udur lana bi hada almahdar wal taadufi bi nadaratin taati lana bi zafar ñu ngi dellu si di waxtaan ak suñu mbokk waa télévision Hann TV di leen sant tamit di gërëm si liñ ñu may occasion ñu waxtaan nit ñi si weeru koor bi si waxtaanu koor yi di si waxtaan nag tey si benn pàcc bu am solo si ñun mooy fi yàlla di wax si alxuraan majma al bahrayni mooy ànd bi nga xam ne àndoon na ko Muusa alayhi salaatu wasalaam moom ak jaamu yàlla bu ñuy wax xudar seen ànd bi ñu àndoon boobu nga xam ne dafay symboliser lu bëri am ñu koy gisee sax ne dafa nekk ni ànd boo xam ne dafa ànd na diggante nitu xaqiqa ak nitu sharia aw rencontre entre prophétie ak sainteté seen ànd gi ñuy ànd waaw boobu mu nekk suratul kahfi fi yàlla di wax ni Moussa dafa xëy bis ne moom dafa am lu muy seeti dafa am lu muy wëri yàlla mu ngi waxtaan ak yenent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko fàttali ko yow yenent yàlla sallallahu alayhi wa sallam yenent yàlla Moussa bi muy wax moom di wax ni ànd fata fata mooy ndaanaan nekk ndaan si xam-xam wala xaleem ba bi mu ànd ba mooy Yuusa bun Nuun bi Muusa waxee ni taalibeem bi nañ dem mu ne fuñ jëm mu ne laa abrahu xatta abluga majma al bahrayni man mi yenent yàlla Muusa du ma deñ di dox du ma deñ di dox ba egg fi nga xam ne fa lañ daje ñaari géej yi mooy majma al bahrayni fi nga xam ne ñaari géej ñoo fa daje lañ jëm foofu lay dem mooy majma al baxarayn fi nga xam ne ñaari géej ñoo fay daje yàlla nee na marajal baxarayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabqiyaani yàlla dafa boole ñaari géej di daje waaw jaxasoo waaye yàlla ne laa yabqiyaani duñ jaxasoo mukk mm-hmm. ñaari géej ñoo fay daje wala ñaari dex ñoo fay daje waaye duñ dajaloo mukk duñ jaxasoo mukk yàlla nee am na benn diir diig bu nekk seen diggante benn kiiraay boo xam ne moo tax diggante ñaari géej yooyu loolu nag moom li mu bëgg junj lu bëri la ndaxte ñaari géej deux océans moom fu ñuy daje yéeme na ndaxte océan yi ñoo wër adduna bi waaye nag loolu mën na am yàlla comme xakim la moom yàlla dafa xereñ day junj rek si ay wax borom xel nag ñooy daal xalaat ba xam junjee li mu mun a tekki ndaxte yàlla neen si alquran bi mu wàccee alquran bi si yenente yàlla salaa sallam li tubayyin linnaasi maa nuzzila ilayhim wala allahum yatafakkaruna yàlla yenente yàlla sallam da nga war a firi ni ñi aaya yi ba mu leer waaye ñoom tamit daal di xalaat si firi boobu moo tax kii xalaatee nii kii gisee nii kii gisee nii kii gisee nii moo tax bu ñu nee majma al bahrayni mooy bërëb bi nga xam ne ñaari géej ñoo fay daje te yàlla nee na baynahuma barzaxun am na benn diig bu dox seen diggante laa yabgiyaan duñ jaxasoomu loolu nag li muy wundu bëri na laa wax ne baxaru nag léegi ñu wax ne baxarul xaqiqa wa baxarul shariati mooy géeju sharia ak géeju xaqiqa bokkuñu waaw géeju sharia ak géeju xaqiqa bokkuñu mën na nekk tamit leneen mooy géej dex bu neex bi ak géej gu wex gi waaw bu xorom wi loolu lu ñuy wax si nasaraan embouchure wa mu nekk si fi ñuy wax la la zone de delta delta mooy wetu ndar googu wala def daa fii dafa neex fii dafa wex waaw waaye nag yàlla dina am na dig bu dox seen diggante loolu nag moom déggin la rek mhm. waaye tamit bu ñu indee borom physique bi ki nga xam ne dafa am dégg-dégg physique dina xam ne foofu c'est une barrière physique mooy ñaari géej ndox yi ndox mu neex mi ak ndox mu wex mi duñoo wute seen moléculaire différence moléculaire lañ koy wax wala différence de densité ah yemuñu du ñu benn du ñu jaxasoo mukk loolu moom borom chimie bu ñëwee day gis ne lii ak lii du benn mooy géej gu weex gi mooy géej gu xorom gi dafay contenir ay matières yoo xam ne nekkuñu fële mooy li ñuy wax NaOH mooy hydroxyde de potassium wala KOH mooy hydroxyde de sodium sodium ak potassium du benn mooy tax la lay weex dafa am ñaari xeetu xorom xaroba ñu tudd NaOH mooy hydroxyde de sodium bële mooy KOH mooy hydroxyde de sodium mooy tax ndox mi di wex moo tax wexaayu géej sax day wute ça dépend de la teneur de ces molécules loolu moom mu nekk barrière fee na nekk HO rek H2O fii H2O plus les autres éléments xam nga day wute moo tax day looy am barrière physique wala barrière chimique mooy tax sa diggante duñu duñu jaxasoo boo jëloon jëli ndox ak diwlin nga boole leen duñu duñu jaxasoo mukk parce que duñoo wute y a de densité mun na am différence de densité la loolu nag mooy déggin borom physique bi la wala borom chimie ba waaye nitu yàlla bi day am dégg-dégg mooy xaqiqa mooy dafa am charia ak xaqiqa dafa am lu ñuy wax temporaire ak éternel wala spirituel waaw du ñu benn loolu nag nitu yàlla dëgg-dëgg mooy di nit ko xam ne dafa am benn dimension boo xam ne zahir la am dimension baatin boole leen ba tey bu ñu ko am benn dégg-dégg si biologie bu ñu demee si médecin ba boo ko waxee daal géej gu daje dina ne waaw mën na am parce que xol bi nekk si biir nit ki xol bi léeg-léeg am géej gu jóge fii nekk un sang qui transporte l' oxygène du dëgg on appelle ça le sang rouge mooy géej gu xonq gi day sotti si xol bi mooy si or oreillette gauche bi bi waaw lii di sotti beneen boîte pàcc bi nga gis ni geneen géej guy ñëw mooy géej googu mooy le sang qui transporte le CO2 mooy le gaz carbonique boobu tamit. dafa wuteeg bii parce que seen seen seen acidité bokkut bii moo gën a neex bii moo gën a weex foofu tamit mun naa am loolu foofu waaye nag gis ñaari géej bu ñu tasee si xol bi du ñu daje mukk bu ñu daje rek nit ki ndaxte si xol bi am benn diig bu dox mooy baynahuma barzakhun entre ventricule gauche ak ventricule droite entre oreillette gauche ak oreillette droite am na benn diig bu xam ne du ñu daje bu ñu daje ki daal di moo tax nag nitu yàlla bi moom du seet si si afaak si gox yi si boppam lay seeti moo tax yàlla ne wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna yéen gis ni si zahir bi mu ngi ci yéen mooy arif billahi xam yàlla moom day xool si boppam di gis li mu war a gis si lépp mu koy firi si boppam moo tax yàlla def sa alxuraan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaqu naa leen wan mandarga yàlla yi naa leen wan mandarga yàlla yi si gox yi aussi yéen seen bopp sax ngeen ko ndeke xol bi tamit day wane na point de rencontre la entre les deux océans ñaari géej géej boo xam ne dafa transporter oxygène ak géej boo xam ne il transporte le gaz carbonique ñu dañ foofu waaye laa yëpp ak yaa ni duñu jaxasoo mu buñu jaxasoo nit ki faatu yal na yàlla xamal moo tax neexal lan mooy xol lan mooy xal bu waraa xolu mbindeef mi gis nga xol bi ñaari fetefe duñu jaxasoo moo tax am nit yàlla ñoo xam ne ni duñoo diggu doomu mooy ñooy seen charia pàcc am seen charia a seen xaqiqa charia bi xagga bi du ñu laalante di dund yàlla waaye di jëfe charia di dund yàlla jëfe charia moom la naar bi waxoon cheikhaani mu ne yaa taaliba najaati fi xaqi rabbika fi xayaatika wa baada mamatika wa ida aradta al adla fi misanika fa sawi benn fi imanika fa sawi benn ka fi misanika yow mi bëgg mucc dëgg-dëgg si àdduna ak alaxira da nga war a yemale si ñaari wetu balance bi balance yore balance bi charia la balance bi xaqi la nu leen war a yemale waaye na sa cere gi yem ak sa soos dëgg cere gi yem bu benn ëpp man ma nitu yàlla dëgg-dëgg kooku nag nit boobu da nga koy fekk mu am benn pàcc wajaal li bari jismikal mujahada wa li baxri ruuxikal mushahada yaram wi di liggéey di dem jàkk di liggéey waaye nag ruux bi nag wajaal li baxri ruuxika ruux bi nag mushahada di seede yàlla du gisulul yàlla da gis yàlla moo def lépp waaye nag si zahir ngay gis ne fii tooñ na ma fii def na ma sa saa gannaaw damay fayu loolu charia la moo tax war a xool nit ñi si xaqiqa bal na xool sharia moo tax waa ji ne ida nazarta ila alxalqi bi ayni shariati maqattahum wa bi ayni alxaqiqati azartahum mu ne nit ñi boo leen xoolee si xaqiqa dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen si xaqiqa da leen di baal rek da nga leen di doo xuloo lu bëri waaye boo leen xoolee si sharia nag da nga di jéppi di xeex vie def na lii Moussa def na li diw def na lii moo tax ni nitu yàlla day xoolee nit ki si xaqiqa moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim na lii nazratun ilaa ibni aadama yastaxiilu maahu lbuxdu am na fu may xool doomu aadama dina araam dina jomm ma koy bañ munu ma bañ doomu adama ne ko lu tax mu ne anzuruhu min haysu nisbati laa min haysu nasab nit ki ma koy xool ci tëbb tëbb ba ci suuf sa fi mu jógee du fi mu askano nisba mooy fi ñu ko tëbbee du fi mu askano du wàllu wàllu la wala fii la bokk déedéet waaye ma ngi koy xool ci tëbb tëbb kullukum min aadama wa aadama min turaabin ñëpp jóge si aadama aadama jóge si suuf si kon nag mu ngoog léegi nag ay junj la rek kon nag majma al bahri ne Moussa nee na du ma deñ dellu si aaya ba Moussa ne man Moussa mu ngi ànd ak taalibeem di wax koy waxee Yuusu ba noonu mu ne man Moussa du ma deñ di dox ba ma egg fi nga xam ne fa la ñaari géej yi daje laa abrahu xatta abluga majma al bahri ne ba ma egg fi ñaari géej yi daje fa laa jëm waaw lu ci teg mu ne fa la ma balaga majma baynihima nasiya hutahuma bu ñu demee ba egg fi géej yi daje danañ ne egg fa bu ñu fa eggee nag noppalu waaye na si yaaxu taxumaa ñu fàtte seen jën bi ñu yore woon mooy seen waal wàll yëbbu wàll bi ñu yore woon mooy provision bi ñu yore woon jën bu ñu lakkoon la ba mu ñor ñëw ba foofu ñu toogee foofu géej gi daje rek la jën bi daal di dundaat deqi dugg petit petit la jën géej ga dundaat dem yoonam taalib bi di xool géej nu bi génnee si pañe bi ba duggaat si géej gi di dund taalib bi daal di yéeme daal di yéeme mu noppi rek mënatul wax mu ñu dem mu ne fa la ma jaawaza ñu daal di wéy di dem ñu wéy bi ñu demee ba si kanam ñu sonn ñu demee ba weesu ndeke ñoom egg daje waaye du foofu dem nañu gis nga ndeke fan la géej gi daje ndax ndax lu muy junj lan lan la mu ne fa la ma jaawaza bi ñu demee ba jàll léegi nag daal li fa tax mu ne taalibe bi aatinaa indil ñu xadaa ana suñu yóbbuwaale bi suñu provision ni jooɓaati ndi ñu daal di koy lekk laqad laqina min safarina haza nasaba ñun de xaw nañu sonn xiif nañu indil jën bi ñu lekk ko mmh. laqina min safarina haza nasaba taalib bi daal koy tontu ne ko araayta is awayna ila saxrati fa inni nasitu lxuuta wa ma ansani illa shay'an an azurahu wa taxada sabilahu fi lbahri ajaba Moussa taalib bi ne ko gis nga fi nekkoon fa di noppalu fi fi dex yi daje fàtte naa fa jën bi dama gis jën bi dafa dundaat dafa deqi daal dugg si biir géej gi duggaat da di rëjee ji daw daw dugg si biir géej gi ma yéeme nag ba mënatuma la ko wax mhm. ma daal di lu ba mënatuma ko wax noppi lu ko Moussa wax mu ne zalika maa kunna nabghi loolu la ñu bëggoon yéen fu muy dundaatee fa la bëgg dem da koy jël fu muy dundaatee jën bu deewoon mi lekkoon ba mu ñor nit ki dafa dee moo tax xasaar mu ne al insaanu mayyitun wa madfuunun alaa haykali jismihi nit ki dafa dee ñu ko suul si jëmm ja moo tax tubaab ba Platon di wax ne mu ne euh, le corps est le tombeau de l'homme nit ki dafa dafa dee fokk mu dekki lu koy dundaat mooy yàlla ji gis nga fu ñu toogee foofu wetu géej ci foofu ñoom ñu noppalu bu ñu doon noppalu ndeke géej gi la benn toq ndox daal di tëb si géej jën bi jën bi daal di dundaat loolu la kay di way si kii dëgg mooy wax ne ndox maa ko naan dundaat ndox dund yàlla na yàlla ndox moom mooy ban ndox ndox moom ko naan géej gi ndox moom benn toq ndox moo laal jën jën bi daal dellu si géej gi fi mu nekkoon ci xadara yàlla moo tax Cheikhu Tidiane di wax ne fa gaayatu maqsudul murid rafu lxijaabi an ruuxi rabbaani wa radduhu ila xaalati safa allazi ka allazi kaanat fi allati kaanat fiha qabla tarkibi fil jasbi nit ki moom booy uti sëriñ xam lu tax ngay uti mooy mu dindi kiiraay bi mu dindi ban ba ba mu set si yéen ba ruux bi daal di xëddeeku bu ruux bi xëddee ko rek dellu si xadara yàlla ba ndaxte ruux bi dafa bëgg dellu fi mu jóge woon ku nekk da nga mu jóge woon parce que nit fu mu jóge woon moo tax ñuy wax ne xubbul watani min al iman si nga sopp fi nga ca cosaan loolu ngëm yàlla la cosaan nit ki nag mooy si xadara yàlla ba nit ki dellu dafa dellu foofa léegi nag Moussa ne ko taalibe bi zaalika gis nga foofu jën bi dundaatee maa kun na loolu la ñu bëgg na bëgg loolu la ñu bëggoon loolu laa namoon fa laa doon ah, kon na gis nga rek fu mu bëggoon nekk mooy foofa waaw am lu ñu wax ni jën bi fàtte nañ seen jën ñu ne boo gisee loo bëgg dangay fàtte li nga bëggoon wala ma balaxaa na ma majma baynihima na siyaaxu taxuma boo ñëwee boo gisee lu ngeen a bëgg dangay fàtte li nga bëggoon waaw moo tax ñu fàtte seen jën ba ñu fekk waa ji mu ko fa teke xuutaan mu ngi ko la ñu bëggoon wax ñu fàttali ne li nga bëgg li nga bëgg boo gisee ngeen a bëgg fàtte li nga bëggoon moo tax yeneen yàlla Musaa ne ko nañ dellu daal yi naan na bëgg fa lañ doon sedde fa lañ doon wóor maa kun naan na bëgg loolu laa namoon fartat daañu daal di dëppeeku wàññeeku ala asaarihim ak seen topp fu ñu jaaroon di topp seen tànk ba egg fuñ foofu ñu noppalu woon fi jën ba dundaatee woon fa waja daa ñu daal di fekk ñoom ñaar fa waja daa ñoom ñaar ñu fekk waja daa ñaar lañ seeru Moussa fa waja daa ñoom ñaar ñu fekk foofa est-ce que fa waja daa ñoom ñaar ñaar ñooñu fekk fa kooku fa waja daa ñoom ñaar ñu fekk fa abdan jaam min ibada suñu jaam ya ki nga xam ne ate naahu may naa ko man mii yàlla aatay naahu rahmatan min indina man yàlla ko may naa ko yërmande gu bëri de wax gu bëri de xeewal de wa allam naahu man yàlla xamal naa ko maa ko xamal man mii yàlla wa allam naahu maa ko xamal nekkul wax yu nekkul yàlla da ko wax yu si téere jàngul téere du téere yi la xamee de déedéet moom fu ma xamee mooy yàlla moo ko xamal directement wa allam naahu man yàlla maa ko xamal min la du naa tukkee si man el man xam ah moom ndax elmu laduni su fekkee xam nañ ko yàlla moo la koy sor rek gis nga bu dee yenent moom fu muy jëlee xam-xam mooy mu ngi jaare si wahyun mooy révélation am naa nag nitu yàlla bi mu ngi jëlee si ilhamul mooy ndax intuition waaw moom ilham la mooy yenkaree yenka yenka wal yenka wal la li muy pulaar longineete léegi nag waajoon ñu yàlla ne maa ko man mii yàlla xam-xam bu tukkee si mu ñu koy wax ilmu laduni Moussa xool ko xam na ko allahu akbar Moussa ne ko assalaamu aleyka ya xudar jàmm yàlla nekk ci yow yow xudar xudar xool ko sëggi xool ko ne ko wa aleyka salaam yaa nabiyillahu Moussa alayhi salaam ne ko yow Moussa waa salaam ne jàmm yàlla nekk ci yow tamit yow yonent yàlla Moussa Isa nekk yonent nag moom xam na ne Isa moom Moussa am na kashfu nubuwa xam na ko te am na kashful wilaaya xam na ko nekk xam na ko Moussa ne ko xoolaat ko ne ko eh man allamaka ismi ana kan moo la xamal sama tur yow Xuda Xuda tontu ko ne allazi allamaka ismi huwa allazi allamani ismaka ki la xamal sama tur moo ma xamal sa tur Moussa xoolaat ko ne ko ah am na lu fi nekk de fii. ki xam ma tur nii xam ne yonent laa am na lu fi nekk bu ñu delloo ginnaaw sax daañu wax ne ñun lu yëkkati Moussa ba muy seeti Majmaal Baxrayni lu muy uti Moussa mi nga xam ne moom yàlla may na ko nit ko yàlla may léegi nag Moussa xool ko dafa ne kii ko yàlla junju woon ndeke kii la ko yàlla doon junju ndaxte Moussa wax nañu ne yàlla may na ko ne moom Moussa nabiyun la yenent la rasulun la ndaw yàlla ñu ko doon xam sànq fii ne nit da nekk nabiyun te nekkul yonent nekkul rasul yàlla dina jox nubuwa la prophétie waaye amagul le message waaye Moussa yonent la woon nabiyun la woon prophète la woon message la woon ndaxte messager moo gën a fort kii prophète nga nekk prophète ba pare doog a avancé nekk rasul akbar léegi nag Moussa ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan ndeke ndax man mënu ma laa topp ci yow gis nga de ndax man ma topp ci yow man yeneen yàlla Moussa ala antu allima nii ndax nga xamal ma ci la yàlla xamal rusudan ci njub xoolal ma lii rek yeneen yàlla Moussa wax nañu ne nabiyun la yeneen la rasulun la ndawal yàlla yàlla yónnoo ko te bokkoon ci ulul azmi mooy juróom ñi yàlla tànnoon iza axadallahu min annabiyina misaaqahum minka wa min nuuhin wa ibrahima wa Moussa wa Isa yàlla nee am na cinq majeurs yu mu am juróom ñoo xam ne yàlla am na leen ñoom ñooy tànneef yi ñooy la crème de la prophétie ñooy tànneef yi ci yenent yi mooy les cinq majeurs waaw ñooñu la ul ñooy borom dogu ya ñoom ñooy conseil de sécurité ba boo xoolee mooy yenent yàlla nuhun adama bokku ci de ak ibrahim ak Moussa ak Isa yent yàlla sax nag si kaw ba di pivot ba waaye si basket fekk basket ba cinq la majeur dëgg pivot bi ku ñu am jox mu dugal panier ba dëgg moo tax ba ne bàyyi ne woon mi nii naa waalul kullu wala kullu maanixi allah boo xoolee conseil de sécurité tey cinq lañu mooy France Angleterre Chine Union soviétique ci kaw ba mooy pivot mooy Amérique li nekk fii bàyyi ne na mu nekk fële rek ma ash ba xamul ki kom bi waaye nguuru yàlla gi ak nguuru adduna benn la moo tax ay ati ata ngi nii ñu ngi ñaan ndax benn pays dugg lu mel ni Allemagne tey comme amoon na doole te doole amoon na doole ji te amoon na bu gën dugg waaye du dugg cinq la yàlla wax waaw boo xoolee tey ñu wax Afrique ma leen ñu benn rek ne déedéet bàyyi cinq yi rek cinq yi rek na fa des waxtu yent yàlla sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwaatee encore jóge fële nekkoon cinq si kaw ñëwaat fii si Aboubacar Omar Ousmane Aliyun mu nekkat fii moo nekkoon moo nekk si diggante bi point commun bi la moo nekkoon fii ak yeneen ñeenti yële nekkaat fii ak ñeenti yi waaw waaye waaye nañu xoolaat foofu wala ñu xal ñeenti yi ak ñeenti yi yal nañu yàlla xamul léegi nag moom Moussa mu ne xal attabi'uka ko ndax duma la topp yow xudar nga xamal ma waxul li la yàlla xamale kii li la yàlla xamal as néew si la yàlla xamal léeg-léeg ñun sëriñ si wala ñun taalibe ñuy juum ne xamul lu yàlla xamal déedéet buñ ko firee dëgg dëgg dëgg la dafa nekk hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ku min la ak ma xas fu nuun boobu dafa ñu koy xas ñu fas nuun boobu mu nekk mimma bu doon ma mooy li la yàlla xamal waaye mimma ci la yàlla as li la yàlla xamal xoolal rek Moussa ak lu muy ut leneen nekkoon grade bu garaaw la amoon mooy kalimullah boo doon waxante ak yàlla waxtaan ak yàlla kon nag kooku bu demee ba di yëpp maqaam yooyu yëpp summi bugg topp nitu yàlla ndeke anakan moo war a réylu bañ topp nitu yàlla anakan bàyyi neen loolu doy na doy na sharaf doy na karam doy na teraanga nitu yàlla yi nga topp sëriñ waaw parce que xudar ne na Moussa ne naa topp am na ñu wax nag dégg naa ko lu bëri ci gànnaar yenn mbokk naa yi ñu ne kenn du wax kenn du ko firi mais tax duñu firi lu yàlla wàcc yàlla nee na nañ ko firi waaye yàlla waxal lu mu si dam lu mu si leer na zahir bi moom leer na Moussa nee na man lima ma amoon yëpp si ay maqaama su meeku naa ko topp naa si nitu yàlla ma topp si yow da ko ñaan da ko ñaan demande la def de dafa ñaan ni dama bëgg topp si yow waa ji ne ko innaka yow mii Moussa lan tastadiya ma ay sabran doo mun a ànd ak man fi sama bagage li ma yor dafa diis lii moom dafa yomb yoon la dafa leer nañ te li ma yore attanoo ko innaka lan tastatia mai sabran yow Moussa li ma yore man mi xudar attana ko yow Moussa wa kayfa noo koy attanee sax kayfa tasbir nooy munee munoo muñ ànd ak man li nga xam ne maanaam tasbir xubar li may li may yore da nga ko xamul da nga ko xamul boo ko xamoon da nga muñ doo mun muñ parce que xamoo ko xamul lu tax loolu booy xool foofu nit yàlla ñu ne parce que moom xudar xam na ne Moussa si téere bi lay lay lay tënku Moussa dafay tënku si téere bi day xool lii la yàlla wax lii la wax waaye nitu yàlla bi nag moom lu muy wax fas daa bi maa tuumar lu la yàlla wax rek defal amul rek da am ndigal rek dëgg man mu ne fas daa bi maa tuumar kooku bokk ñu yëmee wax nañu keroog fii ñu ne nitu sharia moom dafay tënku si législation mooy sharia lay tënku xam nañu keroog ñu ne aadama keroog bi wax yàlla waxee malaaka yi usjudu li aadama usjudu leen malaaka yi usjudu leen aadama dafa bañ dëgg waaye Iblis bañul nii rek de da ko teg si té da ko teg si téere ni yàlla yaa xool kenn sujjal lu dul yàlla naka tey del jox nañ sujjal lu dul yàlla mooy lam akuli asjud li basarin xalaqtahu min tinin kii nit la yaa ko bind te waruñu sujjal nit yàlla ñu sujjal ñu dafa qiyaas mooy li ñuy wax la rationalisation dafa rationaliser dafa méngale mbir yi bu moom bëggul woon sax moom dëgg-dëgg dafa bañoon waaye dafay ut ni lay si xam-xam yàlla bu nga ndax lu sujjal mu ne ma dama sujjal nit bu doon yow la ma sujjal waaye nit du ko sujjal li ñu wax si nasaraan rek devant le législateur on doit parler de la législation dëgg Thierno Ba boo demoon fii léegi léegi léegi si Zahir nga dem ba fii si feu rouge ba moo am embouteillage pour sébi jaal leen da nga ne fii kat dafa jàll dama war a taxaw parce que da ma waxoon si permis bi ne boo taxawul si feu rouge bu kii dañuy nangu sa permis